السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ويرزقني أمري فاتلعب لي وارزقني كان عليك أتي عاجلا بجوز كل شيء محمد يحتفون كان يسر جواني توعى وحمد يمكن أتبرا كان كالسماء والآدي وهم بالمشاكل أجب اسم حسن دي محمد تلفى الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ak ñi ñi ñi ñi saare ñëpp waa Abdou Khadim waa tëb wax ya waa fay du akabi saay saare ñëpp rek saare fay xam naa waaw ok mu xam naa sax am na am na am na comment laaj sax laaj bu am solo ci Cheikh Fall luy woteem xam naa maa ngi ko jégalu bu baax ba xam naa tëndaguma ko waaw xam naa mooy ji rek si Cheikh Fall ci coom da rek incha allah nga xam naa xam naa léeg-léeg léeg-léeg ñu dama ci wax dara ma dem ba koy def pour am leneen waaw nga xam ne jumbul mën naa ko faay bu buñ moom ko fàttaliwut waaw waaye laaj la bom solo nag moom moom ma Fall kaar moo war laaj moom fii dafa bi saxin na da lay laaj dëgg dëgg dëgg xam naa naam jumbul lu mu dëgg yooyu lu am solo la maanaam dafa am ñaari kuréel kuréel bii nga xam ne mooy faydul xaniyil muxni mooy ñoo xam ne ñoom dañoo jaayante ngir jàpp ci liggéey bi nga xam ne maanaam bu ndigal jiwee jóge ci man wala wala wala nu mu jógee ci man rek loolu moom mooy war a daal di doon yitte ci ñoom doon farata nga xam ne la la ñuy def moom digal naa leen ñu ñu jiital dem xel waaye duñ ko jëfe sago nag loolu loolu kon mooy fay dul xam ni ñu wax nii nga xam ne jombul jombul dañoo gis seen bopp ci man ci dox bi li nga xam ne moom moom laa gis ne kat mat naa jooyanti ak li li nga xam ne sëñ Bamba fa mu la doon yoon wax foofa foofa la ko usir bi seen day foofa lay junj ñooñu ñooñu fas ci yéen a nargan seen bopp dox jëw yi lépp loo xamante ne moom la moom la dox ba laaj seen dara bañ ko fekkee seen seen seen seen dara bañ ko fekkee inna la stara mina l-mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna loolu ko ci kon mooy fa fay yul xan yul mox nii nga xam ne nga xam ne dañuy fexe ba dund sañ mbaam ba dundin woo xam ne dañ koy dëppale suñ jamono jii noonu waaye ci waaye duñ ko dundee jamono yi mag ña mag ña seeni contexte bokkut ak suñu contexte waaye liñ bokk muy benn mooy tasawuf ruug yi tasawuf la ñu jëm ko dund dund tasawuf cere ba suñu tuwaar di woon nga xam ne connexion boobu mooy tudd di ko faral di wax kenn kenn ku ko ne ci ci waa fay du mos ci xam ni connexion dëgg la wér na ñi nga xam ne am nañu te yéeg yéeg waaye da waaye ku yéeguti da da nga seen puj néegi loolu mooy fay du bunt ba nga xam ne moo ciy dugal nit mooy nga jaayante génne ci sa tànn dem ci tànn ko nga jaayanteel boobu moo salabul ixtiyaar yi loola mu mu mu mu yëf yi man mi nga xam ne maa woote loola dëkkal yoon mbooram sëñ Bamba wa mbooram mag mag ñam fi ba woon ca tër biir wax yéega tër biir ruya nga xam ne boobaa nikkatul booba sëriñu aada waaye sëriñ la boo xam ne dalay taneel ci sa bopp taneel la ci sa ruux taneel la ci sa xel soo soo soo soobaa mu mën a jiite mboor ma nga xam ne alayhi salaam dafa ne anal xaadi maay firéw li kat ba ci kanam lay ne di woote jur gu ci nag rëcc nag ba ba ba ba dem ci ngir seen ak ñax bu ko yéemu topp ca ba jur ba moroom ji jur gi raw ko ak till far ko kooku mbiram la waaw si la doon waxtaan bi tëddee daa ko wax naan sëñ bi da- dafa nekk yoon wi ku génn ci ñag bi nag sëñ bi du du dem julli gannaaw ñag ba jëri jëri kon kon kon kon kooka nga xam ne kooka kon man may woote te te te te te te te loola bu ñu bu ñu demoon ba ba ba gisatuñ ma nga xam ne gisatuñ ma ju nga xam ne jóge naa fii da da da da mbar sàq la daloon mag ña ba ba ñoo dal kenn ku nekk ba nga ba nga tobbee sa suwa ba nga ba sa waxandoor dammee kan fa bàyyi da da ko wala ñan fa bàyyi da dañ koo matiwut ñu fexe noonu nañ ba loolu duñu dal xamante ne ko xamante ne daa daa kum yor ña ña ña nga lay to- to- toq ca tur yàlla tur yàlla tur yàlla tur tur yàlla amuti at moom ku ku ku mën a ku ku mën a julli ku ne rek su- war a jëfandikoo maa xuus war bu dee ci noonu bu bu dee waa faydu laa wax waa faydu ñoom nag moom képp koo xam ne am nga man toll nga ci julli da ngaa war a jëfandikoo maa xuus moom farata lay doon ci yow góor nga jigéen nga màgg màggat nga loolu la ci mën doon. kooku moom da- dafa war a jëfandikoo maaxus maaxus yooyu ñëw bu jëfandikoo ak yeneen yi yi ci des nga xam ne waxtu moom dana ko maye ca moom ñu ñu ñu ñu ñu- ñu jox ko bagage ya ndax ndax ndax àndandoo bi ñu- waxoon nañ ko dañoo bëgg kooka kooka am connexion bu amee connexion ba noppi bu amul yitte yi yéegi dana dana seen pu pu pu puju néeg yi xam ne kë- kë- dëkk ba jëm kat ma nga ne si seel yi ci waxoon sëñ bi moom la la wuñ kii mooy bu ngeen doxee ba ci yàgg toog noppaloo soo soo àndandoo ba bë- bëggee forbat mu mu yee ko ne ko aggaguñ aggaguñ aggaguñ d'accord waaw loolu loolu mooy doxinu faydul xaniyil muux nii mel na ne sax sama borom def def na ci taw fi wax tur wi te yëg suñ bàmba kooku faydul xaniyil muux nii leer yiy bëgg ca ki nga xam ne daa woomal ba noppi di woomale kon mooy tur wa yàlla na leen xëpp ci noonu te te te am na jàmm te ñu- te njëriñoo ko kon kooku kon kooku ci tënk kon kon mooy fay fay yoo xam ne moo xam ne dañoo dañoo dañoo bëgg mu char di di di wéy ami jëwriñ yoo xam ne kenn ku nekk da nga taxawee bu bu bu jëwriñ yi dajee am jëwriñ ñoom yëf yi dox nga xam ne ne ne moom du sooxi fenn. ndax kenn ku ne ci jëwriñ yi da ngaa jàpp ne yaay jëwriñ ju ju ju ju mag ja ndax fañ la taxawal fa fañ la fa fañ la fañ la armé la woon foofu foofa yow foofa yow yow rek yaa fa ne. bu ci ci ci kon bu digal la jibee agsi na ci yow ba noppi kon jëfe rek ci ci ca des waaye dutoo ci xaar leen. mel ne bi ni nga xam ne julli ju- julli rek farata la ba bañ ñu ko di digtalee noona saa bu julli jotatee doo laajati ndigal voilà ba ndagee daal di wéy ñu ñu ñëw ñooñu nag buñ dajee daal di am kilifa kilifa goo xamante ne ñoo ñooy àndandoo noosandoo nocceendoo nga xam ne nga nga- nga xam ne lu ñu tuddee almara yàlla almara mil oliya maanaam léegi objectif yu yu yu mag yi yu kawe ya foofa la foofa ñoo koy àndandoo ba mu shura baynahum wa shaawirhum fi fi amr yi kilifa ko Ousseynou dafa tawakkal saa bu demee ba yëf ya xat kilifa gu mag daal di joxe ndigal ñu ñu daal di di wéy kooku mooy faydul xaniyul muxni bu dee fa faydul akaabe saahin nag mooy ay gaa yoo xam ne ñoom dañoo seen ñooñee seen yëngu ba mu neex leen ñu bëgg a jàpp ci liggéey ba ñooñee faydul akaabe bi saahin waaw lañ cay def ak lañ cay def lépp jàppale ko ñaar rek la. ngir ngir bu ëllëgee ak pay ga li ñuy wax ci fiq pay ak pay pay ga bu ñëwee ëllëg ñoom ñëpp ñu ñu bokk kenn kenn kenn ku nekk lañ ca defoon kémtalaay kat kémtalaay loola la loola mooy sag pay waaye bu dee bu dee fay wax ni moo nii xam nga moom fa fay sax um fa ndax yow da ngaa walanteeru ku walanteeru du doo waxati fay da ngaa bàyyi la ko jaay sa bopp yàlla dama masa gént ñu wax ma ne ma li nga am li amee woo ko ci julli amee woo ko ci woor kon lebalal yàlla sa bopp daal di àbb sëñ ba suñu mag ba baytam wa ma daal ne aqratuku lillah rabbil alamin inshaahu bi xidmati lhaadi l amin inshaahu bi xidmati lhaadi l amin aqratuku lillah rabbil alamin nga xam ne aqratu ci laa dugal ci ci tooy wa waaw nga xam ne ne ne kon ginnaaw loolu leer na moom kàddu ga moom li mu wax leer na lañ ci man li ma am moom li li ma am ci ay sa su ma sax ma ci ay bagages xamuma ko woon ci ca mag ñi suba daje kenn ci mag ñi koo xamante ne li li li may xam diggu naa moom mu ne mi wàcc moom kon mën na ko xam nag waaye nag diggu moon wax ko gisuma woon mu fi yar ko kon ñooñee nga xam ne nag ñoom dañoo bëgg dañoo bëgg ànd ak ñee ci ci liggéey ba ñooñu fay du fay fay du akaabiri saalihiin daara ji ñu ko tudd tuddi nag daara yi bi ñu ko tuddee nag moom sëñ ba sëñ Bamba moo moo ko moo joxe woon tur woowu ci ci yéen jolof ci ci yéen jolof ba ci man musuma gis daara yi digguma fenn fu ñu ko taxal fu fu fudul fii ci patar la la jëkkee saate topp ca ñu yooyu noonu xam la fu nañu ko dem nga xam ne ma ma daal koy fasal yéene ko ñaar ko juróom-ñett ndax moom laa gisoon mu waxal ma ne ma ki doon gis ko mu ne ma jox naa la arafi Tuubaa ñaar ko juróom-ñett kon kooku kon ma daal ne kon kon noonu la na si laa defoon rek foofu si nii sëñ Moussa Lo nee na suñ suñ suñ Abdoulaye Dane ginnaaw dama gis foofu si nii sëñ bi ñaan na ko te lu mu ñaan am na ba noppi ma daal di ma daal di def sama sama liggéey man ci tubaab bi xilaafa gi muy muy foofu si nii mayit ginnaaw doon sëñ bi nee na ma jox na ma arafi tubaab yi mayit mayit ma defe ko naalam boobu lu ci gën a néew loolu mooy li sumu bu njëkk ba ba ne moom loolu mooy farata yi julli ji. su su bu def ko dara juróom-ñett yooyu jeexee nag mën a fi la yàlla nañ ko yàlla nañ ko sarax ba ñu ba ñu julli farata yi ba noppi ba bay naa fi la naafila yu rafet yu gudd gudd yu ëpp rakk yi rakk yi farata ya nga xam ne kon fa fay du akaab bi saa ne kon ñoom ku ku ku ca ne ba noppi bëgg a dugg ca fay du akaab bi fay du xan yi moo xam ni dugg ca bu boobaa ci ci lañ lay sañ a soppandiku nga sopp soppax ndi ndiku ca kooka al idxaal wala ixraaj ah salfaañe sama bàyyi dem sama naa man de mënuma mënuma yar waxin lay waxin la la ca loola ndax nee na mënu mënuma salfaañe te tey ndax yar kon kon kon mooy yar sa salfaañe kon fay doxalin yi moo xam ne ndax bu wàññi ci ci ci lay mën a gax bu dee fay doxalin gaaw si moom moom soppe buy dem ak a ñëw bu nekkee ci daara yi ba demee. kamtulaay lam ñu may ci boppam la la ñuy de la ñuy soppandi ko ci ci moom donc moo moo moo moo faa sa laaj bi daal mel ne am na solo lool kon lool lool lool. mel na ne kon jumbul am na am na ñu ko soxla woon la laajtu wala ñu laajtu woon ko te ak si wugul ci man kon fay dul xam ni moo xam ni mi nga wokk mooy nawet bi mooy mooy gerte ga gerte ba mooy xol ba fay fay dul akabi saa yi nag mooy gaa yi leen seen ba noppi. seen seen doxin wax ñu am ca yaakaar ne lii kat mën na am dëgg la ku ca ku ca jàpp loolee soxna su soxna su pël su baax sax dama bëgg xam turam lool kadaa ju kadaa jox soxna jaara ca Porokhane soow ma ba mu ko joxee soxna jaara na xëy ma ko jaraam yeeg yow nag mu andi ko lépp jox ko woon ne ko ne ne ko mi ngi nii dama bëgg xam naa ne yàlla ngay liggéeyal bu liggéey bu la yàlla fayee doxee ba kooku kooku pas-pasub ahlul irada la kon mi nga wokk asalaamu taala alayna wa aleykum wa ala saa'il muminin